yi lan moo tax aawa yi fiir te soof. mbir yaa ngi bëgg ëppal de te yaa ngi bëgg am fitit tay damaa bëgg woon ñëpp dinaa ma dem Cissé. gis ngeen géew bi dañ koy yaatal ba mu yaatu fii jigéen ñi dañoo bari. man ak yow ci kër gi faalewu ma la. wàññil sa gàllaaj ñu jëm la Aïda. gis ngeen ko am xaalis dafay naqaree bëreel. lu tilim li ci kër gi saabu moo koy fóot. almaami fan la dugg. kër mère réseau mère la kër Maada. almaam ak nu fonké diiné diineem xale bu perte moom lan la ko almaam di doyee. ñun lan lañu mëna ngoro ak ñaar doom policier ñun ay bandi lañu ñu bandi nan lay ngoro policier. mais lool est-ce que wor la cette famille elle est très compliquée. demal nga wax ak almaam yi bu fekkee wax mënu ci dara ñu def ci ay pexe. sa yaay mo lay sét sama yaay kan moy sama yaay.